Serigne Touba la mbaamu Bamba mbaamu bàmba lu may téye juddoogut Sénégal lu may téye juddoogut Sénégal barke alxuraan Cheikh Ibra kun lu may téye juddoogut senegal du saaga du wax ju ñaaw du bon du dara mënu ma téye man je suis la mère géej laa damay baaw naan di fëq gaal di sulli néew géej laa damay baaw naan di fëq gaal di néew billaahi boo leen xamoon ni munu leen ma wàññi munu leen ma arrêté munu leen ma noppiloo munu leen ma wax li ngeen bëgg a dégg <laughs> da ngeen a rep rek <laughs> li ma wax maa ngi koy waxaat dama ne Ousmane Sonko sama conseil ci moom na préparer lépp lu mu bëgg libération des prisonniers libérer boppam libérer Sénégal lépp lu mu bëgg mu préparer ko ci benn mémorandum jox ko Macky Sall ne ko boo bëggee discussion lii dañ koy def bu ko defee mu delloo ko parti politique am lépp mu delloo ko ko bu ko defee ba pare ñu doog a discuter waxuma mag Ousmane ko dem discuter dama ne na Ousmane Sonko préparé mémorandum am bu dëgër këcc boo xam ne intérêt Sénégal da cee nekk intérêt Sénégal la ci défendre libérer prisonniers libérer boppam libérer lépp luñ ko teg defar mémorandum bu dëgër jox ko Macky Sall bu ko nangoo ñu tem ci ñu dem ci li nga xam ni moom mooy ay dialogue man li may wax dafay leer de <laughs> kenn mënul duul ba yàq sama wax lii laa wax te gisuma doomu aadama bu ko mun a tegg te lii laay waxaat te suba bu ma génnaatee waxaat li bu ma génnaatee waxaat lii waaw maa <laughs> kon mi ngi noonu kon gars yi ñu ngi ñëw demaat incha allah bu dara ñëwaatee rek dinañ leen ko wax di leen wax ni muñ resserrer les rangs bu ñu bàyyi dara bu ñu kenn déstabiliser bu leen kenn détourner de l'essentiel gis nga gémmiñ di coob morom ba te làmmiñ di coob morom ba te ñamaru gis nga ñii nii ñaar ñett yi di fen aka duula ka dajale ka di wax di n'importe quoi di sos ñooñu seen nday baaxut yéen am leen fulla Sénégal moo leen ñor taxaw leen pour Sénégal xeexal leen Sénégal bu leen kenn déstabiliser bu leen kenn détourné xam nga lan nga war a jàpp seen biir ki ki fen nii gënu la nday gënu la bàyyi ki duul nii di dajalee kaw di wut intérêt gënu la nday gënu la bàyyi dama ne yokk leen fulla yokk leen fayda ci li ngeen nekk Ousmane Sonko lañ wax Ousmane Sonko bii nañ ci nekk taxaw ci gës nekk ci farlu ci bu ñu kenn détourné de l'essentiel focus ci lu ñu nekk dama ne kenn ndeyam gënul sa ndey ba mu mun a jur ab nit mu taxaw fële di duuli duula ma ko dajale bugg la ñëw corrompre wala bugg la yóbbaale loolu lànk leen ko bu leen ko nangul kenn kenn kenn kenn man de dama gëm ni sama yaay benn yaay gënu ko moo tax amul benn doomu aadama bu muy mën a détourné benn doomu aadama bu mu mën a transformé benn doomu aadama bu mu mën a maanaam jaxase loolu amut parce que dama respecté sama yaay xam ne sama ndey kenn gënu ko donc benn ndey du fi jur doom mu gën ma du ma ko nangu ba may jéem a manipuler manipulateurs yi fees nañ fi dell ay fenkat lañ na dañuy encaissé toog ci internet bi ñu yabal leen ñuy duul ak dajale bu ñu leen waxee xeex leen duñu xeex génn leen duñu génn ñooñu nag foog ni ñoo leen gën ndey bay dugg di infiltrer di wax ak nga gënuñu leen ndey de bu leen nangu kenn ku leen gën ndey maa leen ko ñaan gënuma leen ndey gënuma leen ndey gënuma leen a baax dégg ngeen sama gars yi gënuma leen baax bu leen nangu kenn ku leen gën ndey bu leen nangu benn biddo xaram bu jóge fële di leen jéem a manipuler wala di leen jéem a détourner de l'essentiel wala di leen jéem a fen lànk leen loolu Macky Sall gënu leen ndey Macky Sall gënu leen ndey benn doome xaram bu ñuy yebal fay ko xaalis mu dugg ci internet yi di duula dajale gënu leen ndey donc loolu na ngeen ko lank na ngeen ko ku ci respecté sa àqu njureel waroo mën a nangu sax ab doomi xaram bu jóge fee xamoo ko ci ndey wala ci baay ci benn commentaire mu bugg laa corrompre wala mu bugg laa nax wala mu bugg laa détourné wala mu bugg laa foowee loolu ñàkk respecté sa ndey la da ngay fonk sa ndey xam ni kenn gënu la bul nangu kenn gën la ñun ñëpp on est des anciens spermatozoïdes futurs cadavres bul jël sa xel joxe ko ñu koy tëddee bul jël sa xel joxe ko ñu koy foowee internet bi bëri na manipulation bëri nay fen bëri na ñu ñu yebal bëri na ñu ñu yónni bëri ñu ñu encaissé loolu lépp mingi fi donc am ànd leen ak seen yaqin ànd leen ak seen bëgg-bëgg ànd leen ak seen vision ànd leen ak seen i principe dëgër leen bu leen doon yi caga bu leen doon ay oyof sër ba ay doome xaraam yi tekkul dara ñëw di leen détourner de l'essentiel combat bi ñi ngi ci dañ cee ñàkk lu bëri tardé ci yàqule ci lu bare bare bare bare bare bare bare lu bare bare bare bare bare bare bare donc loolu fu ñu toll nii dañ ciy war a continuer bu nit yi génnee ànd ak ñun ci xeex bi ñu dem ci bu ñu bu ñu fa bàyyee ñun dañuy continuer parce que combat bi combat de souveraineté nationale la combat de libération du peuple sénégalais la donc combat de principe la ku ñëw ànd ak ñun ñu dem ku àndul ak ñun ñu bàyyi la fa dañuy continuer mais allah kulli al ndam lii dinañ ko jël ndam lii combat de souveraineté nationale bii deux mille vingt quatre dinañ ko jël. combat de libération du peuple sénégalais dinañ ko am yàlla lañ ci àndal yàlla te dinañ ko gagné allah kulli al contre vents et marées contre lépp wax ju ñaaw ak fen ak sos ak loolu du ñu arrêté combat bi dañ ci dem ak xatar dem ci xël dem ceeg doole dem ceeg résistance dem ceeg bëgg-bëgg kenn mënuñu détourné kenn. barke alxuraan 2024 bii dañ koy toog te danañ libérer ce pays là souveraineté nationale dina am libération du peuple sénégalais dina am te danañ teg réew mi ci yoon. ak népp nu ñu mën a def ba jël réew mi dinañ ko jël dinañ ko jël te dinañ ko defaraat dinañ ko teg ci yoon. donc daal li may wax sénégalais yi moom mooy fii waxtu pleurnicher jotut du wa du jooy du jooytu du jooy du jooytu bu Macky Sall arrière élection yii peuple bi génnuñu xeexuñu. loolu garaawul du tere dinañ wut ñun beneen plan bu ñuy def pour mun a wiiri wiiri duggaat ci biir continuer lañuy def affaire bi loolu kese la nangu walla bañ la ku sañ ta nangu sañ a bañ bu fekkee lii ñu def nii nangu nga bañoo bañoo loolu laay woo ci sénégalais man lu may woo fas yéene libérer suñu bopp ci nii wala ci nee ci nii walla ci nee léegi nag man sénégalais yi dama leen respecté sénégalais yi laa wax sénégalais yi mu doom kuttu mbaasaani sénégalais dama leen respecté sénégalais bu sénégalais bu jógut xeex du ma la forcer moom ma la juruma la joxuma la dépense joxuma la ceeb neex na trop xool leen ñu bëri ñu nekk ci internet bi ñu nekk ci internet bi ñu ci bari boo xoolee kaaw ba lañ nekk naan gars yi génn leen gars yi génn ñu ñuy saaga sax sénégalais yi mais kooku ban respect la mais moo war a génn génnut mais danga ko moom joxoo ko ceeb joxoo ko dugub toog fu nga toog nekk ca kaaw ba kenn jàpp la nga toog rek di forcer nit yi dafa yomb te quatre-vingt-dix pour cent yi ñoom la ca kaawa lañ toog di yeewu di liggéey di fayeku toog fu nooy yor seeni jabar yor seeni jeeg toog seen fuñ toog naan gaa yi génn leen te xamuñu ñoom sénégalais yi nekk fële lu tax génnuñu jéemuñu ko liggéey ba di leen saaga te kooku rewande la kooku du cër nit ki da koy jox cër mais toog fu nga nekk ci kaaw bi di forcer sénégalais di accélérer sénégalais ah génn la dama ne loolu il faut l'arrêter bu la tollee foofu dugal avion ñëw kenn terewuloo ko dugal avion ñëw léegi léegi maa ngi woo benn nit boo xam ni États-Unis la nekkoon moo dàqoon wax génn leen dama ko woo léegi laaj ko mu ngi vidéo laa ko mi ngi toog salon xale bu xespec toog wetam ñu def gang ñi teg ataaya ma ne waa booy looy def mbedd mi mu ne ma non kenn génnut kenn génnut lu tax may génn te pourtant moo dàqal wax génn leen mi ngi Sénégal jamono ji génnut vidéo laa ko woo direct barki alxuraan mi ngi toog ak jeegam ca Sénégal te dëkk États-Unis dem fa génnut de ba mu ko waxee daf na ma Sénégal kenn génn donc damay expliquer léegi nag man loolu loolu kaawmaan yi ñoo war a bàyyi loolu kaawmaan yi ñoo war a bàyyi toog fële naan gaa yi génne leen génne leen génne leen bu leen jar bu tollee foofu ngeen génn bu leen tollee foofu ngeen génn bu leen tollee foofu kenn terewu leen ko génn leen <coughs> kon gaa yi comme nu ma leen ko waxee lu fi des bareetul incha allah Ousmane mu sell mi Ousmane ci xel mi Ousmane ci xalaat bi dina dina yëg na lépp lu xew dina ci waxtaan moom Ousmane Sonko incha allah dina ci waxtaan ak les ayants droit dina ci waxtaan ak ay nit te dina revenir ci yéen voilà incha allah voilà dina revenir ay. principe dina revenir ak stratégie dina revenir incha allah donc di wax bépp patriote bul découragé bul bàyyi bul daw bul noppi bul gàddaay incha allah du yàgg dara Ousmane dina leen revenir ak ay wax ak ay stratégie ak lépp bu soobee yàlla loolu daal laa leen wax voilà kon nag sama gars yi ñu def noonu di béggee ñëpp di sant yëpp di màggal ñëpp di ndamoo dañu wax ne daal restons forts et on continue ce combat les gars on continue ce combat on continue sa combat on continue ce combat on continue ce combat contre vents et marées on continue ce combat moi je suis fier de mon combat je suis très fier de mon combat je suis fier de mon combat barke alxuraan fierté totale devant Ousmane Sonko damay siggi ne xujju xool ko devant qui que ce soit damay xujju xool ko je suis fier de mon combat combat boo xam ni arrache laa ko laa ko xeexee depuis bu ma ko tàmbalee xaaruma ci kenn nekk ci dugg ci jëmm ci jox soobu ci à cent pour cent je suis fier de combat et kenn même Ousmane Sonko bu taxawee du ma sig du damay sigg ci kanamam du ma rus ci kanamam même bu taxawoon damay sigg ci kanamam bu ne woon A ma ne B amul fu mu xeex fu ma xeexut amul lu mu jaayante lu ma jaayantewul amul lu mu joxe ma joxewul man ñooñu laa nawloo man je suis dans mon combat et fier de mon combat je suis très de moi et fier de mes parents ñu jur doom joo xam ni un résistant un vrai résistant qui a toujours résisté koo xam ni boobu ba léegi mi ngi taxaw musuñu ko corrompre mus kenn musu lekk dërëmu kenn kenn musul taxaw ne jox naa ko kenn musul fu mu taxaw principe yooyu la taxaw ba léegi ba suñ jonn yàlla tey loolu yombul Sénégal Sénégal corruption ak gaaw corrompu yi comme tulleeg male je suis fier très très très fier de moi wallahi la azim bu dem bu doon tey laa la wax ma ne yàlla defaraatal ko mel ni man yàlla naa am doom yu mel ni man ay doom yu gëm seen seen combat ay doom yu ñafe ñu mun a dëggu ay doom yoo xam ne kenn du leen jaay kenn du leen jënd ñuy taxaw ci àll su soxlaay baadoole yi di xeexal baadoole yi kese su suis fier de moi très fier de moi bu ma deewoon tey jii àjjana laa jëm kenn mënu ma arrêté je suis fier de moi au moment où ñu bëri dañoo daw bu muy metti ñu bëri làqatu ñu ci bëri xamuñu leen ci xeex bi musuñoo ñimawuñ sax génne génne toog def live je suis très fier de moi je may tëgg sama dënn di ko dóor ne je suis fier de moi en 2024 j'ai j'ai été l'un des plus grands résistants du euh, contre le gouvernement l'un des plus grands résistants contre le système néocolonial je suis fier de moi très très fier de moi te yàlla na ma yàlla bàyyi ci yoon bi ma nekk yàlla na ma yàlla aar musal ma muccal ma ci dëmm yi naa feqi seytaane yi yàlla na ma yàlla yoon gi ma nekk yàlla na ko yàlla di gën di leeral ca kaw ca kanam du ma reculer du ma bu desoon lu dul benn nit man damay taxaw da yàlla dimbale na ma dara fuq ma dara fuq ma nit nit bu am idéologie la bu am concept bu am buy faay te yàlla tax dara fokku ma tey bu amoon ñu bëri ñu toogoon ci sama kanam ñuy toog <laughs> affaire bi neexoon na de tey bu amoon taxawaay bi ma taxaw yàlla may ma ko am na ñoo xam ne bu buñ fi nekkoon jaay nañ seen ngor bu yàgg jaay nañ seen ngor bu yàgg l'un des plus grands résistant man di yëngal eh, jamono te xoola ba léegi maa ngi résister ba léegi li ma doon wax démb laay wax tey doo dégg àdduna nit bu jóg taxaw ne Mollah mi corrompu la fii lañ ko jëndee fii lañ ko nàngamee comme nu ñu def juge maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla de barke alxuraan Ousmane Sonko day dina wër àdduna ba mu daj pour am ku mel ni Mollah ku dëggu ni moom macha allah dégg naa même bu may xool ak fierté la may xoolee barke alxuraan ak fierté kilifa doomu ndayam la xaritam la dëgg xaq bi la xaqan kilifa saa yu demoon seeti Ousmane Sonko da koy daf may laajte ne ko ana Mollah tey suñu waa ji loolu la koy wax ñantu ana suñu waa ji tey suñu waa ji barke alxuraan kooku Ousmane Sonko ma toog ki kilifa toog mu ne ma booy sois fier de toi. barke alxuraan Ousmane buy wax say wax sax buy wax say tur sax da ngay sentir mbégte bu muy am ci yow moom danga nga ko jaaxal yow toog nañ fu ñu toog nii ma génne photo bu yàgg man ak yow ak yi bu nga taxawee nii sol kara karaw gi mu ne ma jox ko Ousmane Ousmane jël sama portable xool xool xool ne sey suñu waa ji kilifa maa ngi wax turam fii kilifa kilifa kër gi ne Ousmane tee ko ak ne cey suñu waa ji kon moo nekk nii ma kilifa waa mi ngi nii kay mu ne cey suñu waa ji kon man je suis fier de moi dama xeex xeex xeex xeex ba Ousmane ko xam ma. ci xeex bi la ma xamee xeex xeex xeex xeex ba génn ko fu sori xeex xeex xeex fekk ko fu mu lëndëm kiris ñëpp naan ay Ousmane moo def moo deful ma loqati ko fa génne dóor affaire Adji saar bam mu leer naññ ko ba mu set wecc man mii la du keneen man mii la maa fekk Ousmane cib lëndëm ñu koy jiñ viol ñii naan moom la ñii naan du moom ñii di werantee ko wacca wariñ ko rek fii la xar mi jaar ma ne koo ragat génn ci lëndëm indi ko defal opération bu dëmm leeral affaire ak jaamam leer nañ set ko ba mu sangu gars yi doog koo bëgg ñu bëri doog a ñëw ah ko lii la dañ ko tooñ dañ ko tooñ man la su suis de mois je suis très fier de moi barke alxuraan bi ma am ci sama bopp bu koy gars yi xamoon maa ngi sant yàlla nag mais je suis de moi Et Ousmane est fier de moi. Au fin fond de lui. Il est très fier de moi.